remercier M. le ministre de l'Éducation nationale euh, pour l'accueil, mais également en profiter pour remercier le chef de l'État. Euh, cette action que nous allons faire, que nous voulons symbolique, qui consiste à accompagner l'État en donnant 165 000 masques au ministère de l'Éducation nationale, s'inscrit en droite ligne des initiatives du chef de l'État, qui, comme nous le savons depuis le début de cette pandémie, le 2 mars 2020, n'a cessé, disons, d'accompagner les populations, n'a cessé de prendre des mesures, mesures salutaires de lutte contre la COVID-19. Nous profitons de l'occasion pour remercier le ministre de la Santé et de l'Action sociale et l'ensemble du corps médical sénégalais pour les initiatives et les actions qu'ils ont eu à prendre, n'est-ce pas, dans le cadre de cette lutte contre la COVID-19. Parlant du secteur de l'éducation, c'est un le secteur le plus important en termes d'effectifs. Tout à l'heure, M. le ministre nous rappelait que l'effectif au niveau des élèves tourne autour de 4 millions, sans compter les enseignants. Donc la première action Covid de la Task Force républicaine ne pouvait ne pas se faire en dehors de, cet univers que constitue le secteur de l'éducation nationale. wane nañu seen euh, responsabilité ak seeni conscience ci li nga xam ne moom mooy gravité wu moment yi ba tax na ñu ngi respecter geste barrière yi waaye ñu ngi leen di ñaax euh, ñun task force républicaine ñu ngi leen di ñaax ci ñu gën a góorgóorlu ci takk masque bi ndax loolu moom moo ñu mën a muccal muccal suñu réew te gis nañ ni président de la république def na ay jéego ci fan yi ñu génn fexe ba réewu Sénégal bokk ci réew yi njëkk a bénéficier ci vaccin bi mu nekk benn pas bu rëy ci li nga xam ne moom moo fi jëlee feebar bi di ko ci remercier bu baax a baax di ñaax suñu mbokk jàngalekat yi li nga xam ne samay collègues lañu ñu ngi leen di ñaax ñoom tamit ñu gën a góorlu ci respect geste barrière yi ñu ngi leen di félicité également ci sacrifice bi ndax wane nañ ni ay soldats lañu réew mi toll na ci xeex ndax euh, Covid bi xam nañ ni euh, fi mu ne guerre lañu ñu créé waaye jàngalekat yi ñu ngi ligne de front di di di japp ci xex bobu donc ñu ngi leen di remercier ci sacrifice remercier association parents d'élèves également ci action citoyenne yi di wo sénégalais yi ci ñu éviter pluies luy les pluies luy déplacement yu bari te di jiital respecter geste barrière yi Thank you.